union nationale des ferrailleurs du Sénégal nga xamné fukki ak raison ak ñent ñoo nek ci Sénégal képp fo xamné ne ferrailleur mu ngi fa ñu andone bolo, dajalo pour jàppale le président de la république ci xex bi nga xamné moy jangoro bi nga xamné mo dugg ci réew mi mi Covid 19 bi ci fukki raison ak ñent yépp ci Sénégal président bu nek ci région bu nek am ñam bot ñu am luñ dajalé pour jébbal ko nguuru Sénégal ci xex bi nga xamné moy coronavirus bi nga xam moy mooy adina rew mëno développer té développé wër amul jamm amul ñun ñëpp ci wara and parce que rew mënta dox sans wër mënta dox sans jamm kon ñun tamit ñun secteur ferraille ñu xam ci rew mi lañ bok ñu wara mëna jappalé président Macky Sall ci xex bobu noonu. raison bu nek ferrailleurs ñu ngi and ak président ñu ngi and ak ferrailleurs di sensibiliser ñëpp pour feebar bi mën fi jógee. les ferrailleurs du Sénégal n'ont pas seulement des préoccupations commerciales. ils sont d'ailleurs soucieux des problèmes du peuple sénégalais. Ainsi, ils exercent leurs obligations sociales, particulièrement dans ce contexte de pandémie. C'est dans ce sens que nous remettons de millions notre contribution dans le cadre de la guerre que notre pays, le Sénégal, a engagé contre le Covid-19. D'autre part, nous participons à l'entreprise nationale de sensibilisation des populations sénégalaises dans les 14 régions afin de vaincre le coronavirus. Parce que tous les ferrailleurs du Sénégal sont en train de participer euh, dans la, contre le Covid-19.